coalition benn bokk yaakaar jaar na caisse de dépôt et consignation ki fa teewal Amadou Ba déposé na caution valeur fanweeri million mbirum yónnee koppar la pour matal li nga xam ni yoon teg na ko ci kaw képp koo xam ni am nga sañ-sañu nekk candidat te nga matal yépp yoon leeral ko ñu nangul la ko parce que kooku ko moom mooy conseil constitutionnel. Euh, dalal nañu ni ñuy dalalee candidat yëpp amul benn beral loxo amul benn xaj seen recevoir nañ ñu ñu def formalité yi ñu delloo ñu cutis bi nga xam ni mooy mandargaal ni wàccoo nañu ak charte bi nga xam ni. loi bi daf ko teg ci képp koo xam ne danga nga bëgg nekk candidat jiit réew mi. ginnaaw coalition googee di benn bokk yaakaar ñeneen ñi bëgg samp seen ndënd ci élection yi ñu digmal itamit teew nañu foofee. indi suñu caution caution wu suñu candidat le président Jean-Baptiste Diouf euh, la coalition Jean-Baptiste Diouf sama camarade yi ma àndal dañu ñëwoon pour fësal suñu maanaam suñu engagement aux côtés euh, du président pour que jour élection yi le 25 ñu mën a gagner. Euh, su soobee yàlla en tout cas loolu mooy suñu loolu mooy suñu mbébét. donc ñun dañu jàpp ne parti socialiste euh, dafa war a am candidat dëgg la ñoom am nañ euh, nee nañ candidat mais ñun ñun dañu jàpp ne dañu war a am candidat parce que ñi nga xam ne ñoo yore ndono yi euh, président Senghor. yore ndono yi président Ousmane Tanor Dieng yàlla na leen yàlla yokk leer fi ñu nekk ñooñu waruñu mën a toog élection. Mhm. ñu toog tey di seetaan ne duñu bokk. docteur Serigne Gueye Diop nag mooy suñu candidat. moom la ñu bëgg a fal pour mu yore Sénégal ëllëg ndax dañoo bëgg li mu def Sandiara ba Sandiara nekk la première commune émergente ci Sénégal. yàlla na fekk ni moom la tànn te bu ko tànnee aussi mission bi nga xam ne moom la dëgmal yàlla na ko yàlla yombal. parrainage yi pare nañu këyit bi rek la xaar bu leen dañuy dem déposé ji. li ni mel doon na ponk gu am solo ci ñi nga xamante ni ñoo bëgg samp seen dënd ci élection yi ñu digmal waaye ginnaaw loolu ñu ngi xaarandi résultat dépôt dossier yi foofee ca conseil constitutionnel